mbokki téléspectateur Mouslih TV ba tey rek dañuy am mbégte bu baax a baax di wéyale suñu waxtaan maa ngi toog ak ki nga xamante ne mooy Soxna May Diène doon koo xamante ne jàpp naa ne dootuñ ko présenté eh, ci waa Sénégal mu bokk ci fédération eh, Maam Diarra Bousso bi xanaa rek balaa dara dama koy bàyyi mu nuyu mbokki téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi koy seetaan naka noonu rek ñu la suñu waxtaan ci ay laaj ak i tontu Soxna Diarra ñu ngi lay siyaa bu baax. ngi bu baax waa euh, mbokk yi seetaan Mouslih TV di ziar bu baax a baax mbokk yi nga xam ne ñoo ñu seetaan fu mu mën a doon ci àdduna bi di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah soxna May ñu ngi lay dalal bu baax a baax te di am mbégte bu baax di bokk ak yow suñu plateau soxna May ci lu ñu bëggoon rek nga dikkal ñu ko mooy si li nga xamante ne mooy euh, fan la seen fédération bi tàmbalee. waaw jërëjëf soxna si mu mel ni fondation Mame Diarra Bousso mi ngi euh, tàmbali ci atum 1999 euh, sëñ Moustapha Bachir moom moo ko créé woon di doom ci Cheikh Mouhamadul Bachir nekkoon euh, xalifa sëñ Bachiru à l'époque waaye tam nekkoon jëwriñu Poroxaan ndax ku nekk xam na ne ku nekk xalif sëñ Bachir yow yaa nekk xalif Poroxaan donc moom moo créé woon fondation bi en 1999 léegi nag di ko doxal. ba ñu reconnaître fondation bi comme fondation d'utilité publique reconnaissance boobu mu am mi ngi ko am en 2006 ci jamonoy président de la république Abdoulaye Wade donc ci la xool xam ni fondation bi amal na njariñ réew mi amal na njariñ askan wi amal na njariñ tamit képp koo xam ne da ngay di ab jullit rawatina di ab murit ak foo mën a nekk ci àdduna bi ci lañ joxee li di fondation Mame Diarra Bousso reconnaissance comme fondation d'utilité publique par décret d'état ndax ku nekk xam na ni fondation par décret d'état loolu du n'importe qui lañ koy jox wala sur n'importe moo tax bi mu ko créé en 1999 fondation bi di dox ay liggéeyam am solo ak yi nga xam ne yor na ko di ko doxal ci réew mi ak ci bitim réew euh, ci lañ ko reconnaître comme fondation d'utilité publique en 2006. soxna Diarra ba xam mën nañoo xayma membre yi nga xamante ne ñoo bokk ci seen biir fondation bi ba xam tamit ndax seen fondation bi ci Sénégal rek la yam wala dafa dafa génn ba à l'extérieur. waaw fondation Maam Diarra comme ni ma ko waxee euh, képp koo xam ne euh, membre nga ci daayira Maam jaara am carte di dagg say carte 2000 2000 jàppar ne fondation bi ci nga bokk waa xëy na nag mën nañoo lim fi mu toll nii daayira yi nga xam ne ñoo affilié wu ci ci fondation bi ñu ngi toll ci 3000 daayira plus de mille daayira ñoom ñooy bokk ci fondation Maam bu soo di fàttali itam ne fondation Maam Diarra Bousso Serigne Mountakha Bachirou Mbacké xalif général ku lu murit yàlla fi yàgg ci ànd ak Euh, moom mooy président de la fondation donc li ñuy def nii ci turam lañ koy defee euh, sëñ Isaaxa Bachirou di rakkam euh, ñu bokk ñaari waajur kooku itam moom mooy administrateur général de la fondation. ku nekk xam na itam ci média bi sëñ Cheikh Fatma Mbacke yaakaar naa ñu bari xam nañ ko ci donc moom mooy moom lañ jiit teg mu yore li nga xam mooy cellule de communication bi parce que ku nekk xam na ni. fondation dina am ay commission waaye euh, communication def doon am solo ci mbir rawatina ci genre yu mel nii rawatina nag ci fondation Mame Diarra bi nga xam ne dañ ko war a fësal ndax euh, lu baree bari ci Porokhane ak lu baree bari ci Soxna Diarra fondation moom moo ko yore donc mën nañoo wax ne daal mille daayra wala plus de 3000 daayra ñoom ñoo affilié wu ci ci fondation bi nga xam mooy fondation Mame Diarra Bousso macha allah kon jàpp naa ne question boobu leer na waaye soxna May ku ne xam na ne ak sëriñ mun Mountakha jamono yi ni mu toll ni mu nekkee xalif na maanaam taxawaayam ci biir euh, fondation bi bëggoon nañ ci gën a am ay leeral. waaw taxawaayam ci fondation bi amul changement amul changement ndax moom ku nekk xam na ni euh, yàlla li mu dogal mu nekk Cheikhul Khadim xëy na moom moom deful ci moom dara. waaw deful ci moom lu bari donc ni mu ka mu nekkoon ba tey moom la nekk rek xëy na nit ñi ñoom ñooy am yërmande ci moom ak di ko di ko kiiwal yenn yeeg coono yeeg yooyu waaye euh, taxawaay bi mu ci amoon ba tey moom la ci am ndaxte du ñu def dara te te yëgu ko lii ñu organiser nii xëy na ndax moom sax da daan ñëwal boppam waaw moom da daan ñëwal boppam daaw la ñëwul yaakaar naa daaw ñëwul ndax sa ku nekk xam na ne boobu dafa fekk mu nekk Serigne Touba waaye ba mu nekkagul Serigne Touba nekk Cheikh Mouhamadul Bachir da daan doxal ak tànkam ñëw ba ci forum bi nga xam ne mooy ëttu Soxna Jaara mu ñëw ubbi ko ñaanal ñu wala mu bàyyi ba ci suba ga si jour bi ñu koy tëj mu ñëw ñaanal ñu kon moom euh, xëy na ñëwul physiquement waaye xelam ak léppam mi ngi fi ndax mi ngi fi yebal Sëñ Isaaxa ndax démb ku fi nekk xam ne Sëñ Isaaxa ñëw na fi ñaar yoon te loolu wax dëgg yàlla rëy na lool si ñun parce que moom li may wax saa nekk du suñu nawle du suñu morom waaye terewul à chaque fois lu lépp loo xam ne fondation bi taxawal na ko da ci am taw ak mbégte goo xam ne day ñëw ànd koog ñun parfois day toog sax ba mu jeex muy soog a dem donc moom la fi sëñ bi yabaloon mu ñëw teewal ko fi ñëw na saytu liggéey bi kon daal suñu taxaa xëy na nekku fi physiquement zahiran waaye mën nañu wax ne baatin na moom mi ngi fi parce que liy xew ci fondation bi ak liy xew ci ci ci de communication bi yëpp mu koy yëg macha allah ba tey mbokki téléspectateurs yi jàpp naa ne réponse boobu leer na bu baax a baax képp koo xamante ne wax nga li nga xam ne mooy fondation euh, war na composé ak ay commission ñu bëggoon a xam commission yi nga xamante ne euh, moom moo nekk ci seen biir fondation bi. jërëjëf euh, soxna si donc comme ni ma ko waxee fondation bi am na ay commission yu bari parce que am na itam ay postes comme niñ ko waxee donc parce que ci biir commission yi ci la ñuy créer postes yi. Euh, ku nekk xam na wax naa ko sànq sëñ sëñ Mountakha mooy président fondation bi Issakha Bachirou di administrateur général

ñoo koy donc ku wax fondation wax commission culturelle wax cellule de communication relation interne externe bari na ay commission yoo xam ne daal mi ngi ci mi ngi ci biir euh, fondation bi euh, plus commission euh, cellule de communication bi nga xam ne d'ailleurs ci laa bokk sëñ Cheikh Fatma jiite ko loolu moom. soxna May jàpp naa ne loolu it ba tey it leen na naaj xanaa rek euh, soxna May dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo ak mbokki téléspectateur yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan waaye ginnaaw loolu rek ndénkaane boo xamante ne da nga koy dénk rawatina suñu mbokki soxna yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan. jërëjëf soxna si di jégalu bu baax nag ci tënk bi ma leen di tënk parfois xëy na sa njot bi moom moo barewul ak yu bare yi ñuy xaar mais bu ñu sañoon ku ci nekk dañ la jox temps bi nga soxla yëpp wante yoon yemul ci benn ndax dañoo bëgg ci cellule de communication bi bu màggal gi jàllee ñu def en collaboration ak euh, média bi nga xam ne bu ñu mënul mm, organe de presse bu nekk ñu am fa chaque mois benn plateau tamit ngir gën a leeral fondation bi tamit dañ def de telle sorte que daal di coordonné ak ñoom ngir gën di gën di communiquer donc euh, ko suñu bopp di ko jiital ci suñu bopp moom mooy ñu xamaat bu baax soxna Dia te xam ne euh, waxuma sax boo delà da ñëw di màggal si di xam ay xisaak yooyu mais imagine soxna ab soxna sànq dama génne romb rang bi góor ñi góor yàlla yi ni ñu raawee fa na mu soree ak fa ñuy jógee ran ba si barabu soxna jaara bi nga xam ne liggéeyal suñu borom rek moom moo am solo ndax du ndax fanweeri at ak ñett ay ñoo xam ne ci zaahir mat nañ la way jur ay quatre-vingt quatre-vingts ans soixante-dix ans plus de cinquante ans di taxaw ngir ñëw ziyaare si la loolu ay caaxaan mayewu ko donc faaw soxna yi gën a góorgóorluwaat jàppaat ci jikko yi jël ci yiw gi surtout ndax léegi seetlu nañu soxna yu bari dañuy xaawi seen i seen i cër di di di wax di di yëkkati seen i baat di wax di nekk ci internet bi lépp loo xam ne du yëfu soxna ay challenge yu ñu yoo xam ne daal man damay wax ne lii moom bu fi soxna naa bu fi soxna si sax jógu fi ci baatin waaye bu fi nekkoon ci zaahir moom dina am neneen nu mu demee xëy na dina loo xam ne ba bu fi soxna jaara nekkoon di nga rus a présenté woo noonu ci kanamam wala nga rus def ab vidéo mu seetaan ko nga ci am yaraange man pour man waroo koo def parce que ku nekk war na jàpp ni ki nga xam ne moo ñu may Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul muy soxna jaara kooku ndax sëñ wax nañ ni wax na sëñ Masamba benn yoon ni ko Masamba mu ni ko Mbàkke mu ni ko xéewal gi yëpp soxna jaara la man li ma suñ borom ma yow man xeam lay feeñ kon ku mel noonu ñu ko amee dañ ko war a dañ ko war a valoriser waxuma nag ñi topp xisa yee daanu yooyu yëpp c'est très important c'est bien beau parce que ci murit gi la bokk waaye nag ñuy bàyyi xel jikko yi ndax jikko moom mooy nit defar jëmm yi defar colko yi boo doo yokk yiw gi waaye tam euh, gën a rafetal gën a rafetalaat jikko yi surtout yar bi ak teggin yi parce que soxna jaara boo xoolee ay jikkoom bokk na si yi ma si gën a neex mooy yar gi mu yar woon nga xam ne wax nañ ne benn bis dafa nekkoon ak euh, ñi mu bokkaloon Mamor Anta Sali ñu ay soxnay Mamor Anta Sali ñu toog ku nekk naan ki naan dinaa fi jur weer ki dinaa jur biddiw ki dinaa jur jant am bu doon sama classe gi dañ fay nekk di day laamiñ ñii werante mu xam ne lii bu ñu werantee coow li day bëri mu bàyyi leen ba ci suba ga mu ñëw fekk leen ñu toog ci liñ ko nettalee mu ne leen démb de ngeen di wax dama doon dama leen a jox cër bëgguma woon a weranteeg yéen waaye man dinaa fi jur asamaan mu tiim jant teem weer teem biddiw ku mu neex mu tiim la ku mu naqari mu tiim la te noonu la ko suñ borom subhanahu wa taala defee ci xolal yar boobu ba tey tamit même même même ci ci ci ci ci détermination bi li wax saa su nekk jikko bu am solo nit da ngay am ambition soxna Diarra elle était très ambitieuse parce que li tax ma wax ko mooy imaginez ñun da ngay gis soxna buy dox bu ñu nee ko lan nga bëgg ci sa àdduna du ko xam moom daal day xëy di lekk di xëy di naan mel ni mel ni mala maa damay ko yaa maa ngi koy jégalu ci ñi ma ko sañ a wax solu lekk naan dem digg parfois gis koo xam ne day jóg sax dem ci barab buñ nekk loo fay wut du ko xam moom na dem rek amul benn objectif buñ la lee loo bëgg ci sa alaaxira amoo si benn objectif yow daal mu àjjana sax dañ koy choisir àjjana man pour man àjjana da nga ko war a choisir parce que ni amee àdduna ni mu amee ay sàkket am étage am immeuble am château noonu la àjjana amee loolu am na ñoo xam ne àjjana yi ñu nekk moo dàq àjjana yi keneen nekk donc yow da nga naan man tel na laa bëgg firdaws laa bëgg a dëkk loolu yëpp détermination la ak objectif soxna si ni mu ko amee woon dañ ciy jël misaal bi muy dem kër Mamour Anta Sall ñu war koo muur ci guddi gi mu ubbi kaamel alxuraan bi ñu foog mu yam ci maakaana Muhammad aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi wa mi nabiyin bi suñu borom di wax ne Muhammad waay waajuru kenn ci yéen waaye moom mooy euh, way mooy ab yonent la te moo tëj yonent yi soxna si ni damaa juróon kaamil bi ngir waat waaye bu dul woon aaya bi dinaa waat ne waat naa ne dinaa jur koo xam ne euh, ab yonent lay doon dëgg la sax comme li ñuy wax jurul yonent waaye nag jur na koo xam ne bu ñu tuddee turam teg ci yonent bi muy xaadim rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam loolu rek détermination la ak objectif ak xam fi nga jëm te ba mu demee itam ba mu amee détermination am objectif it ba mu demee terewul la mu dogu woon ba mu demee ci la nekk ba tax mu am li mu am kon daal li may bàyyi soxna yi mooy sa chaque année booy màggal si jëlal ci soxna si benn jikko bu dee da ngaa jëlal neel man daal dama soxoroon gisu soxna jaara ak ñàkk ki ñaan nga jéem ci def effort balaa déwén xëy na mu changé bu dee dangaa dangaa a tooñ mel ni man wala ngay jëw mel ni man a bàyyi gisu ci soxna si ni mu si taxawee ko defee balaa déwén incha nga am changement donc daal man pour man daanuy baax na wax wax fi mu bokk baax na yooyu yëpp baax na mais daal jikko yi moom moo ëpp solo kon xam naa dañuy yemale foofu kàddu yi di jéggal lu baax ci wax ju tasaaroo ji xëy na matewuñ ko <laughs> waaye mënul woon ñàkk di wax rek waaxe rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, soxna May ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ci njàppandal gi nga xam ne jàppandal nañu ko liggéey bi ndax ku ne xam na ne màggal gi xat na lool yitte yi tamit bari nañ lool waaye bi nga xamee dañ ko woo dafa bàyyi lépp lu mu jàppoon ñoom wuyu suñu ba tax na ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax waaye it di wàccee foofu suñuy kàddu di fas yéenee wéy la suñu waxtaan rek ci yeneen i jotaay.